coow li yëngal addu euh, bon xaw ma ndax actualité internationale bi yéen koy suivre ci wàllu racisme bi ñu doon këfin euh, ndeysaan maa ngi ne racisme lu yéeme la waaw mun nga koy dégg nag di ci di argu di commenter mais soo ko dundul waaw ñi ne bitim réew soo ko dundul nii waaw man li may ñàkk dëkk-dëkk bitim réew di fa jaar rek mus naa yéeg ci train defe naa damay bañ a tudd dëkk bi yéeg ci train bi ma duggee di sama ticket train bi may xool fan laay toog bi may gisee sama place ndekete am na ñeenti ay maire lañ sax ndeysaan ñoom laa narat bokk man bi may dox di ñëw rek ñu ngi calculer ndax kii di ñëw fii lay toog ak fa toog danaa fi ma newoon man rek maa fa doon nit ko ñëw bi ma biñ ma séenee nga gis ñu ngi comme xam naa seen biir bopp yi boo moytul ñu nga naan kii yàlla bu mu toog ci nga bi ma toogee ci bi ma ñëwee ne nii gis nga ni ñu doon arrière di dajalewaat seen <laughs> seen seen yaram yi kenn ki moom saagam sax dëkku ko jël gën ko uuf gis nga choc boobu psychologique bi ma def léegi te loolu ci ci ci benn lax de temps la rek ci train la après dama wàcc ñu dem ma dem ma ñibbisi ci Sénégal mais ñi fa dëkk nag tabarkàlla moo tax lu doy waar lu mat a lu mat a lu mat xeex la waaye nag nit nag sooy xeex dara waaw yow nit ku ñuul ci ah, nit ku ñuul kii nañ na nga ñu respecté la waaye ñun suñu biir it nañu respecté nit du xeeb boppam waaw waaw nit ku ñuul yonent kat jombuñu waaw bay jombale suñu bopp yonent bàyyi laay alayhi salaatu wasalaam la yàlla yónni ak Seydina Isaa bi waaw am na nit ñu ñuul ñoo xam ni duñ mënuñu nangu xam-xamu nit ku ñuul ni moom waxuma la sax yonent nit da ngay fan sa bopp bëgg sa bopp tabarkal tabarkal tabarkal waaw nit ku ñuul ki kat buñ ko wax nègre waaye nag nigérian bi gabonais bi buñ ko wax ñakwaay guinée bi buñ ko wax ndereng kii bëgg sa doom ñëw sa kër waaye bul lijjanti ndax tëgg la wala sàngam la wala sàngam la wala sàngam la te ni ko Chérif Ibou Seyni di waxee su tubaab ñëwee doo lijjanti sax fu mu bokk ngay may ko sa doom kon mbokk yi euh, euh, euh, yëf yaa ngoog